maanaam wóolu na fichier yaakaar naa ne ku ma suivre pendant des années war nga xam ne je fais partie ci ñi njëkk a moom laa doon wax nit ñi dañoo tëx ci artu ci affaire fichier électoral expliqué naa depuis 2012 que dispositif électoral bi fi président Macky Sall fekk daf ko kase dama demoon ba wax waxu quatre appuis la ko daaneel fichier bi la njëkkee reprendre ko ne dafay def carte d'identité CEDEAO pour fexe ba def refonte fichier bi ba mën a réorganiser ba def lu ko neex ci fichier bi je l'ai dit depuis bu ñu demee ba carte d'identité ñu jël ko boole ko ak carte électeur mu nekk benn carte montré na ne kooku am na lu muy préparé parce que ñaari carte yi bokkuñu carte électeur bokkul ak carte d'identité carte d'identité nationale dafa am ay fonction yu mu am fonction d'identification ci nation bi avec sa descendance sa papa sa yaay et tout carte électeur dafa am fonction bu mu am fonction ponctuelle u élection la boo demee ba boole ko rek am na loo bëgg a def loolu boo ko xasee ba boole bu la neexee sax nga jël ñoo xam ne amuñu nationalité sénégalaise nga utal leen ay carte pour ñu voter te doo ko mën a vérifier à première vue kon loolu wax naa ko mënuma wóolu fichier boobu wax naa parrainage li ma ci xalaat wax ko waxati ko ni leen parrainage bi c'est une boîte noire black box ku ci dugal sa bopp da ngay gëmm rek ku ci jàll da nga da nga am benn da nga am presque chance rek mais ku ñu bañ nga dugg ci nga nga nga jàll ci boo amul pexe doo ci jàll loolu wax naa ko ministre de l'intérieur wax naa ko mooy troisième appui bi mu leer kon man mënuma wóolu système fichier bi mënuma wóolu parrainage bi wax naa ne logiciel bi ñu ko defee dañu ko war a tëggandoo dem naa ba octobre ñu waxtaan suñu parti ñu ne situation bi ni mu demee avec la crise nañu proposer débat ci affaire report élection ñëpp daal sama kaw ne ma da ngay wax Macky Sall pour mu def mandat ah da nga amul parrainage lu nekk dégg naa ko ma ne leen nañu toog waxtaanee ko ñëpp daal sama kow ma ne leen processus bi baaxul bu ñu demee écarté nañu déjà si dossier judiciaire yi mënuñu ko fi tëgg ba muy sotti fii ak élection yi tous les faits m'ont donné raison ba pare parrainage yi dinañu éliminer ay nit yoo xam ne yi dafa am lu ñu représenté te dafay indi problème ci élection yi nañu toog waxtaanee sama parti ne ma bul ko wax ñu discuter ci ñu ne ma même boo koy wax wax leen lu leer nga avertir leen buñ la xasee ba investir dañ la investir pour nga gagner ay élection on ne t'investit pas pour reporter des élections. Moi, je ne parle plus de report d'élections. On m'a investi pour gagner et je respecte mon parti. Je suis venu ici pour gagner. Je ne parle pas de report. bi ma ko waxee bu ñu ma déglu woon ut nañu solution léegi loolu passé na béy wéy na mbuus kon man awma confiance ci dispositif te bu ñu jëlee pouvoir bi dinañu tëggaat dispositif bi ça fait partie des quatorze mesures yu ñuy jël dans le plan jagal bi ñuy def pour reprendre dispositif électoral kon loolu question bi leer na nañ beneen bi mooy affaire u plan B xam nga man peut-être li sama tour commencé B moo tax fu ñu tourné ñu ne ma plan B man du ma plan B wu kenn je suis le plan A du Sénégal mu bëgg leer plan B plan B mooy koo xam ne dañ laa bett ne la candidat la wala dañ la bett désigné la ku ñëw di liggéey moi pendant des années maa ngi liggéey ci programme démissionné de l'inspection générale d'État démissionné de l'ensemble des postes créer parti bind livre programme parti bi am collectif des cadres deux cent cinquante membre ñu jël ko liggéey ko def validation interne validation externe am projet programme bu leer nañ tabax nooy defee réew mi foo ko jëlee et tout kooku xam nga ne du plan B wu kenn donc loolu dama bëgg ñu jël ko teg ko fële. maintenant booy politique nag dafa am ñoo xam ne da di daje ci yoon wi dafa am yoon yoo xam ne da ngeen daje boo leen dajee ngeen def alliance avancée mun na nekk alliance électorale mun na nekk alliance politique ñun on est ouvert à ça waaye toog di góolu ñu désigner la kooku du man. dama bëgg wax boobu gaa yi teg ko fële man maa liggéeyal sama bopp sama parti liggéey ñu liggéey suñu parrainage de proximité parenage partisan ñu def suñu option defuñu parrainage populaire di ko tànn ñebe benn par benn def suñuy contrôle yàlla def ñu def tirage au sort ñu nekk premier amuñu doublon externe ñu jàll liggéeyal suñu bopp donc nit ki da nga koy reconnaître mérite politique am 2019 bi ñu ñu daanelee fii lu nekk wax nañ ko kenn dégluwuñu avant laa dem FRN ma ne leen système bii dinañu daaneel candidat yu bare boobu ñu ñu ngi doog ko dugg politique kenn dégluwuñu bi ñu duggee ñu daaneel vingt 27 ñu def C25 xam nga commencé wax tiré wuñ ci leçon yi ñu topp ci di alerte di alerter defuñu ko donc voilà la situation bi mu am léegi nag fan sentiment laa am ah mooy sant yàlla rek yow 2019 dañ la ñu tiire ci leçon yi loolu mooy loolu mooy vie boo def dara bu amee fay ñu xool leçon bi ñu njëkk a tiire mooy parrainage populaire boo ko defee dañ lay dugal ay doublon ñoom loolu la ñu def dañu dem ramasser parrainage yëpp ak fu ñu ko mun a jëlee dugal ko bu ñu la dóoree doublon et ñoom bi ñu ko defee ba pare est-ce que dem nañu parrainage citoyen déedéet dañu dem élu ñoom ñëpp élu lañ dem bàyyi ko fa léegi dañ ko jël rek téye ko ku dugal ñu ne la ko sarax nga daanu kon nag ñu ne ñun duñ def parrainage populaire on a mis en place un dispositif boo xam ne bii boo ñuy parrain dañu yox sa carte d'identité ñu ngi commencé janvier bi ma defee sama dédicace libre ñu jël sa numéro téléphone derrière xam la ñu ne parti bi d'abord les cellules les sentinelles ensuite les proches ñu def contrôle derrière dañ woo téléphone ne la yow yaa parrainé Boubacar Camara dégg naa da nga parrainé Boubacar eh, ne kii baaxul wala mu ne ah, man moom rek la parrainé ma ne ah man ñaar la parrainé parce que kii sama xarit la kii sama mbokk la nga dindi ko noonu la ñuy def benn par benn on a passé des nuits et des fi nekk nii ci gannaaw xaw nañu rey seen bopp ci parrainage di bind tànn ñebbe benn par benn di fanaan dama naan ñëw guddi gis ne ñu tëdd ci canapé yi ay borom kër di ñefe benn par benn ñu jënd logiciel boo xam ne bii boo bindee numéro d'identité bi rek mu bindal la yëpp amul benn erreur matérielle ñu contrôlé ko ba pare concevoir logiciel boo xam ne amul dublon interne ñun amuñu benn dublon interne ba pare nag contrôler li ci gënoon a jafe moom mooy la date d'expiration comme c'est dix ans ñu développer benn système qui nous permet chaque fois boo jëlee date de délivrance bi danga nga ci yokk plus dix boo amee incohérence nga dindi ko ñun ñu liggéey yàgg a gérer ay administration yàgg a été ñu sécuriser suñu clé ba nga xam ne munoo ko modifier munoo ko convertir ah ñu ñëw indi ko fooy jaar bu ñu nekkoon quatre-vingt-treizième sax dañuy jàll. caaxaan baaxul de caaxaan baaxul de ñun dañuy liggéey donc ça c'est très important alors maintenant dispositif électoral bi kuuroo conseil yoo doo ko mën a tuddee su fekkee le dispositif n'est pas consensuel du baax élection dañ ko war a yëgoo ñu toog discuter ko partie yëpp nekk ci man dama xamul dama xamul lan la conseil constitutionnel di wut ci ay compté ba ay parrainage ak ay yooyu c'est un système boo xam ne c'est entre les partis ñun on a proposé un système qui est clair dans le livre ñu ne parenage kenn mënul pare parrainer kenn nit kese CEDEAO wax na ko dañuy permettre nit ñu ñu parrainer jusqu'à trois personnes parenage automatique képp ku inscription automatique ci fichier boo amee dix-huit ans conformément à la constitution tu es dans le fichier ñu def campagne de radiation boo bëggul bokk ci fichier bi comme le vote n'est pas obligatoire ñu dindi la booy parrainé dañ lay jox terminal nga téye ko benn benn poste mais ñu ngi def recensement population on est plus de 18 millions d'habitants parce que boo defee parrainage boo bindee nit ki parrainé mu signé c'est fini kenn mënatu ko jël ñu comptabiliser la bu motee ñu ne la mot na yaa ngi am sa parrainage mu jeex loolu bu ñu ko defee système boobu amul benn problème ku mun a def vote électronique su dee millions d'habitants war nga mun def parrainage système bi ni ñu ko organiser daf leen di permettre ñu am la main dessus pour écarter des nit donc ñun euh, le problème c'est pas la cour constitutionnelle ou la réforme sur la cour constitutionnelle le problème c'est un dispositif consensuel entre tous les candidats et qui est transparent avec une bonne utilisation de loolu tout à fait possible et on peut vous